bismillah bismillah ay ma jéem kañ boromi may yureya Cheikh Tidiane sëtu yoneen Chérif mayam yërëna bismillah ay ma jóg kañ boromi may yureya Cheikh Tidiane sëtu yoneen Chérif mayam yërëna ma juddoo anu maa di cereeri aljazair yàlla yóbbu ko maghrib mu tëdd faas. waaw walla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 وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم موكي خدام الطريقة التجانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغلين دي نيو دي لين زيار دي لين جاجفل دي لين بالواق دي لين نيان التوفيق دي لين نيان السطر دي نيان يالا مبوالي نيو جامي بيرك جامي بيتي suturas àdduna ak suturas àllaaxira ñu ngi jéglu bu baax ñàkk indi bindu tafsir bi démb ñu ngi ciy jéglu bu baax amoon nañ yéene bi waaye dafa xawoon xat ñu mujjoon jot al ustaaz Ibrahima Diop jox ko ngànt ne xam naa dafa dafa xaw a xat nañ bàyyi ba semaine ba lee di ñëw incha allah tey nag ñu ñëwoon ci majmua bi ngir tàmbali benn euh, bind bu bees boo xam ne dafay jàngale al cheikh ahmadu tijaani radiallahu anhu xaatimul awliya daf koy jàngale di wax moom mooy kan fu mu jaar ak may yi ko yàlla may ak xam-xam bi ko yàlla sédde muy al ilmu laduni yooyu yëpp dañoo ñëw rek pour waxtaan ci mu nekk ay xalaqaat tey nekk xalqa bu njëkk bi waaye njëkk ñuy dugg ci loolu dañoo bëgg a leeral ni wala boog dañoo bëgg a ndokkeel al ustaaz Abdul Aziz Mbuub moom mi nga xam ne moo doon def siira sayidi alxaaji malik si radiallahu anhu mu def ko ci anam bu yaatu ta leer te am solo waa majmuu bi itam topp ko déglu ko bu baax am ci mbégte itam bu baax a baax mbokk yi doon dégloo ñu ngi leen di jaajëfal waaye dañuy jaajëfal ba tey al ustaaz Mouhammad Kama al ustaaz Mouhammad Kama caw ci looli mu feeñal fan yële passé te oustaz Ibrahima dugal ko ci groupe bi mu nekk ay vidéo yoo xam ne waroon nañ cee indi sax ay taaliqaat fii ci majmua bi te mooy te mooy wax jooj yi nga xam ne boroom taqdisul ashxaas fi lfikri suufi borom taqdisul ashxaas fi lfikri suufi def na ko maanaam intixaal la ko def maanaam mooy sàcc sariqa ilmiya mooy sàcc ci wàllu xam-xam mooy nga fekk boroom xam-xam bu bind yow nga war a tuxal li mu bind te tuxal li mu bind sax aayul waaye nga war a leeral kiy jàng ne lii maa ngi ko tuxali ci ci diw waaye deful loolu dafa fekk boroom xam-xam bu tuxale ci keneen tuxal wax ja ci maana moom mu jël waxi ka tuxal tuxal ko indi ko ci téeréem ba pare fa boroom xam-xam ba ixaala woon mu ixaala fa pour wane ne man maa tuxale foofa waaye dama ko tuxale ci maana ndeke jëfi keneen la sàcc lu keneen def la sàcc loolu nag dañ dañ ciy jaajëfal oustaz Mouhamed Kama ndax loolu moom damay faral di wax ne mënoon nañoo dund ba àdduna tukki kenn du ko trouver dafa dafa sew loolu dafa sew waaw dafa sew moo tax euh, Modou Lo borom taqdisul ashxaas fil fikri suufi sàcc la mais du du du sàccu cuune waaw du sàccu cuune mooy sàcc bu xam nu ñuy sàcce waaw <laughs> waaye tamit xam naa ki ko doon jàpp itam inspecteur bu bu bu ñaw la waaw inspecteur bu ñaw la waaw bu yàgg a jàpp sàcc ne bu dul woon loolu kay loolu du mën a nekk ñu ngi ciy jaajëfal oustaz Mouhamed Kama bu baax a baax waaw di ko ci sant di ko rafet lu itam te itam di ko encouragé loolu am na solo lool jazaahu llahu xayran gannaaw loolu nag ñu dugg ci sunu bind tey ñuy jàngale a cheikh ahmadu tijani wala siratu cheikh ahmadu tijani radiallahu anhu histoire wala jaar-jaaru wala dundu cheikh tijani sharif radiallahu anhu moom mi nga xam ne mooy sunu wasila mooy قطب الأقطاب موي علم الطريقة موي بحر الشريعة والحقيقة دي مولانا أبو العباس أحمد بن آه، أحمد بن مولانا محمد المكنى بابن عمرو الشيخ جي دوترم الشيخ موم موي سيرن ريك مي ميغي تودو احمد mi ngi ahmad bayam tuddu mahammad bi fathil mimi, mim gi dañ koy fatha euh, magharibe yi ñom dañuy faral di def ku tuddu muhammad ñu fatha mim gu ñëk gi wax mahammad ndax duñu bëgg ëlëk ku tuddu turu wi wax safan lolu sunu mag ñi ci koy def ku tuddu muhammad ñu ne ko Moodu wala ñu ne ko Mamadou maanaam il faut am luñ dindi ci tur wi ngir mu bañ a nuroog tur wa ñu ko duppee à cent pour cent ndax dañuy bañ ëllëg ku ñàkki teggin koo xam ne du sàmmonteeg tur wi du du wattandi wax lu ñaaw ndax tur wi ndax am na ñoo xam ne dañoo yiwee buñ la bëggoon a wax safaan sax ñemewuñoo tudd sa tur wax la ko da leen di jaral ñu bàyyi safaan ga mais am na ñu ñàkk teggin ñoo xam ne moom moom euh, noo mën di tudd dañuy tudd turwa wax safaan boo tuddee Muhammad itam dañuy tudd turwa wax safaan moo tax boo tuddee Muhammad ñu ne Mamadou walla Moodu nga tudd Murtada ñu ne Moor wala ñu ne Murtala fexe ba dind ci loo xam ne tur wi du deñ te ku wax safaan itam tudd tur yu wax safaan du mel ne ne nga tudd du mel ni nga tudd maxaariba yi itam dañ ko daan def waaw ku tudd muhammad ñu ne muhammad motax buñu démé ci qasida bi serigne cheikh di tagge turondom fa ilayka yabna muhammadin nadani shiyamun tuhaqqiqu jawhara al insani nga gis mu wax fa ilayka yab na muhammadin léeg-léeg nga gis ku xamul nu mu demee ñëw di ko jàng fa ilayka yab na muhammadin fekk du muhammad mahammad la bi fatxil miim fa ilayka yab na muhammadin naa daani chiyamun tuxaqiqu jawharal insaani mahammad moomu nag moom lañ daan dàkkentele ibnu amr moom lañ daan dàkkantele ibnu amr mooy way juru alcheikhu tijaani radiallahu anhu muhammad way juróom tudd muxtaar way juróom bu góor di muxtaar muxtaar way juróom tudd ahmad ibnu ahmad ahmad muhammad moo ko jur noonu nga koy toppe waaw ahmad ibnu mawlana mahammad ابن أحمد ابن محمد ابن محمد ابن سالم ابن أبي العيد ابن سالم ابن أحمد الملقب بالعلواني ابن أحمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد الجبار ابن إدريس ابن إدريس ابن إسحاق ابن زين العابدين ibni ahmad ibni ahmad ibni muhammadin nafsi zakiya ibni abdillahi alkaamil ibni alxasani almusanna ibni alxasan ibni ali ibni abi taalibin karrama allahu wajhahu wala boo ñëwee ba foofu ba waxee ibni alxasan rek nga ne ibni fatima binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy askanam kon shérif la ci deret waaw shérif la ci deret ndax yàlla dogal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi mu am ñépp ñi mu jur ci ay doom bu dee doom yu góor yi doom yooyu jotuñoo sax takk soxna waaw dañoo faatu ca ba ñuy ndaw bu dee doom yu jigéen yi jotoon nañoo sëy waaye kenn la ci ngir tam continuer muy sayidatuna fatima ca ngirtu sayidatuna fatima jooji nag ca la cheikh abdul qadir al jaylaani bokk ca la al cheikh ahmad tijaani bokk ñoom ñaar comme ni ñu bokkee xadamaaya haataani fawqa raqabati kulli waliyin lillahi taala min ladun aadama ila nafxi fi suur waaw waaye askan woowu Cheikh Tidiane dafa fekk ñu bind ko waaw dafa judd fekk ay maamam doon bind askan wi ndax askan wu mel noonu ku ko am war nga koy bind waaw diwoo ma jur diw diwoo ko jur diw diwoo ko jur ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jaadu na waaw ndax ida nufiqa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaalun askanu yonent bi bokku ci bokku ci waaw kon loolu jar na bind moom ay maamam dafa ñëw fekk ñu di ko bind mu nekk kayit goo xam ne dañ koy donnante ku ñëw rek dañ koy sàmm ndax lu mel noonu kenn du ko bàyyi mu réer waaye bi ko fi cheikh fekkee taxul woon nag mu di ci sukkandiku nag doontale ay maamam euh, fekk nañu bind ko wóor na ne itam lu wér la waaw waaye tamit euh, sukkandiku sukkandiku ci sukkandikuwu ci ba am bis nag yàlla dogal yàlla may ko mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mahamdunil eh, eh, mashri mooy nettali loolu nee na bi mu gisee yonent bi nee na cheikh nee na dama dama ko laaj ne ko hël ana sharifun am laa ne ko man sharif laa wala déet نانا يونتي بتون تكو صلى الله عليه وسلم نكو أنت ولدي أنت ولدي أنت ولدي وكررها ثلاثا نانا مبامل كو نكا يو سما دومغا يو سما دومغا يو سما دومغا مانام نم غير دغلل كو ني يو شريف غا شيخنا كيروك بيمو دغي لولو تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي لا بيرل ني نك موم شريف لا داو دال دوغو dooram waaw nga xam ne waaye bu njëkk ba bi mu fekkee kayit gi noonu rek ay maamam di ko donnante ñu di ko bind di wane ne ñoom ci famille shérif lañ euh, famille bu bu bu boo xam ne shérif lañ la taxul mu woon mu sukkandiku ci mu jàpp ci waaw koo bàyyi noonu rek waaye bi ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam ci la am euh, ci la ko béral nag daal di koy fësal daal di cay dogu nag waaw ci ne moom mii kat shérif la moom mii kat te loolu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ko wax ci yaqaza ci kewute waaye waxewu ko ci ay nelaw te sax mu wax ko ko ci ay nelaw ak mu wax ko ko ci ci kewute benn la rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko géntee moom nga gis seytaane mënu koo nataal lim la wax ci gént gi moo la ko wax kon soo ko gisee yaqazatan itam moom nga gis lim la wax it moo la ko wax kon ci gént la ko gisee mu wax ko ko wala ci kewute la ko gisee mu wax ko ko amul genn teqale lu dul ne gis yonent bi yaqazatan loolu ziyaadatun fi tashrif waaw maanaam karaama la goo xam ne moo gën a màgg karaamay gis ko ci gént waaye amaa la mu la xibaar nag ci gént gi ak lim la xibaar ci lu dul gént moom benn la xibaar bu dëggu la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du du wax lu dul noona moo xam ci gént la moo xam du ci gént du wax lu dul noona sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yoon googu nga xam ne wax na ko loolu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xibaaraale na ko xibaaraale na ko xam nga laaj bi moo doon rek man shérif laa walla mu dëggalal ko ne ko shérif la waaye xamalaale ko fa ay secret xamal ko fa ay mbir yu bari yoo xam ne yenn yi ay mbir yi zahir la yi ci des ay mbir yi baatin la loolu mooy li ci nekk moo tax sunu sunu sëriñ al ustaaz qaadi ma jaxate kala radiallahu anhu ويكو موم شيخ وخنا حوى الشرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد مع الشرف العلمي حيث كشفه عن الغامضات العجب في كل مقصد إلى الشرف الديني حيث طريقه طريق ضمان الهاشمي المؤيد منكو الشريف نتيون وخو الشيخ نكو الشريف نتيون shérif nga ci deret shérif nga ci xam-xam shérif nga ci tariqa waaw shérif nga ci deret shérif nga ci xam-xam shérif nga ci tariqa ne xawa sharafa tini xaytu intisaabuhu li fatima zahrai binti muhammadi mu ne ko shérif nga ci deret ndax sa askan ku ko wàññi day sës rëkk ci day day yegg ci sayidatuna fatima te sayidatuna fatima yonent bi moo ko jur kon yow yow sa deret shérifa la shérif la waaw shérif nga ci deret mais yemoo ca loolu doy na tagg mais yemoo ca ndax euh, da nga koo booleek nekk sherif ci xam-xam ndax doon na nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam boo xam ne xam-xam boo xam ne lu nëbb woon te leeral yow boo ko leeralee rek mu leer من حيث كشفه عن الغامضات العجب في كل مقصد لول بو نيو آيات آية القرآن ييغا خامن ولا ينت آية القرآن ييغا خامن شيخ فرينكو اك ينت تي حديث بي تي ييغا شيخ فرينكو بون تي ييغي تي غاي ديغ شريف لا تي خام خام موتاخ ليمي ليمو تي ليرو يونت بي صلى الله عليه وسلم دي تي ليرال القرآن di ci leeral sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggi na dayo te yéem na mboolem boroom xam-xam yi loolu moo tax mu nekk ko nga ci xam-xam waaye gannaaw ga shérif nga ci tariqa ndax tariqa bi yonent bi moo la ko jox ba noppi garanti garan garanti ko waaw moo tax Seydil Xaaji Malik mel ne ku feelu xaadi ma jaxate kala foofu wax ne laqad rufiat

yëkkatiku na fa man shaa fal yu'min wa man shaa ankara gëm ko du ko du ko tax a gën a yëkkatiku weddi ko du ko tax a daanu moom yëkkatiku na rek léegi nag fa man shaa fal yu'min wa man shaa ankara damaanu nabiyillahi nafya inqitaacihi ila axiri dunya an ilcheyqi qurrira mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam warlul na ko ne moo koy garanti ba ba addunay tukki mu ne loolu ñu ngi ko jëlee ci Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu mu wax ko te moom du wax lu dul noona waaw du wax lu dul noona kon Chérif la ñetti yoon waaw xawa sharafa tiini xaytu intisaabuhu li fatimata alzahrai binti muhammadi maa sharafi alilmi min xaytu kashfuhu عن الغامضات العجب في كل مقصد إلى شرف الدين حيث طريقه طريق ضمان الهاشمي المؤيد كان فوفو لا ني تخاوي سي بند بي ناخ دانيو بوغ ني جانغ كو دوني كو سي نيمو واري لين دون جانغ تاي رك موي اسكن الشيخ تجاني شريف رضي الله عنه دا نان سي لالا توتي سي بند بي دي نيو مي بندو تاي بي دانيو بوغون رك خام لنا الشيخ تجاني شريف ميغي تودو احمد ay mamam so len di wagn ñi ngi ñi ngi ñi ngi askano ñu ngi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ngi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci domam ju ñi wax Fatima te Fatima dadul kese kese ci yonent bi motax yonent bi newon Fatima len la ci man lu ko merlo damay merlo lu ko beglo damay beglo ndax Fatima len la ci man lenn lool looli ci yonent bi loolu yi mu wax ne lenn la ci man moo meññ Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu moo tax mu nekk Chérif ci deret wëlbati ku nekk Chérif ci xam-xam comme niñ ko waxee léegi nekkaat Chérif ci tariqa kon foofu la ñuy taxawee ngir mbokk yi mën koo déglu bu guddee ba ëpp day naqaree takk bu beneen yoonee ñu continuer ko bu ñuy koy continuer itam eh, man mën na am duñ ko def direct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 alquran Seexu Tijaan Sariif mayam. waaw wallaay bisimilah ma jéem kañu boromi may. yore ya Seexu Tijaan sëkk yoon nañu Sariif mayam yore naa. ñaar fukk ak benn at Seex Tijaan di foore mboolem xeeti fu nu Seex Tijaan.